Euh, Fata nuyu nañ la ñu gën la xam ci euh, Alioune Sakho comment tu vas. mooy tur bi sax Pape Alioune Sakho ñu gën ma xam peut si Fata mais Pape Alioune Sakho mooy tur bi uh-huh. maa ngi fi maa leen di nuyu di leen sant euh, seen présence voilà merci. Uh-huh. ak madame yëpp ñu leen di remercier. ci biir loolu tey damay daal di wax ñi nga xam ne moo di internet yu ñuy seetaan ndax bu ñu la xamee xam la ci émission boobu ñu wax talent d'or Elle fait partie des initiateurs pour ne pas dire euh, l'initiateur euh, de Talent d'Or oh, tey nag nga daal di jël euh, li nga xam ne nag moom moo di soxna ah, balaa ñuy dugg ci étape boobu Talent d'Or nekkoon na émission boo xam ne ah, Sénégalais yi ñëpp ko apprécié woon surtout bu vacances jotaan moo nekkoon li nga xam ne deuxième occupation lu tax depuis des années gisatuñu li nga xam ne moo Talent Talent d'Or nekkoon loo xam te ni sénégalais yëpp ko adopté woon mais Covid bi moo taxoon moo amoon benn rupture standby mais après entre temps nag ma nekkoon si yeneen occupation moo tax euh, voilà mu nekk toujours en standby mais on va prévoir réfléchir sur comment remettre ça sur pied dénk ko toujours ñi nga xam te ni ñi ngi si production ak événementiel euh, parce que am na ndaanaan yu mag a mag ñu nekk si Sénégal te war ko mën a porter donc on va réfléchir sur ça. bon ñun ñu ngi concentré aussi suñu projet de média le projet du groupe de presse qu'on a mis en place récemment voilà donc loolu moo occupé suñu temps ba tax mënuñu ko booleeg leneen voilà mais comme tey euh, tey bés la boobu mag si man mag sama soxna voilà mooy doog jor jabar euh, yàlla boole mag ñuy wax Adja donc euh, mu nekk bésu mbégte mu kontaan lool gis xarit yi mbokk yi am di jàmb yi gis aussi ñi nga xam te ni mooy la famille de la presse nga xam te ne aujourd'hui on est on est euh, de la presse et ñu gis fi la presse euh, c'est très normal euh, ñu am contentement daal. en tout cas merci ñu ñu Fata ñun ñi nekk ci ci milieu presse bi wala ci communication yaakaar naa ni war nañ ko xam bu baax ndax nekkoon na directeur de commercial bu Seneweb waaye jaana fi nga xam ne ne moom mooy ITV bu Boubacar Diallo ak bu Mamadou Ibra Kane ak yeneen ak yeneen donc tey. xam nañ la tamit ci li nga xam ne moom mooy milieu showbiz bi bi ngay takk tamit dañu yaakaaroon ne ku siw ngay takk wala koo xam ne ne ci milieu mais temps yi dañu gis tendance bi xale yu góor yi nekk ci showbiz bi wala footballeur yi wala yow mi nga xam ne ne tey macha allah yaa ngi ci communication nekk ci showbiz bi di def ay événement xam nga ak yeneen ak yeneen tey boo leen di takk da ngeen di dem si koo xam ne kenn xamu ko ku laxatu ko ngeen takk ko lu tax ngeen ngeen jël loolu stratégie bu bees la wala nu mu demee <laughs> non rien à voir en tout cas Euh, bi ma gisee bi ma gisee sama père dama xam ni que kii la ma yàlla booleel et que euh, def nañ la tour mais bi ma gisee ki nga xam te ni moom laa xam ni que moom moom laa mën a defal et comme la si laa gëm na nag dëggantaan sëy si aras sañ ko takk parce que bi ma ko gisee dama ne kii mooy sama jabar def ci xar si sama tànk tubé pour yàlla vraiment mottali suñu diggante te alhamdulilah rabbi alamin yàlla def na ko euh, tey yàlla dagal na suñu diggante et puis on est marié femme macha allah. merci. ci biir loolu man beneen question bi ma koy laajaat mooy que ni euh, ku ko xam euh, comme ni nga ko waxee. Euh, donc ku ko xam comme ni nga ko waxee xam ne nit la ku siiw comme ni nga ko waxee léegi ni mais sa rencontre ak madame nan la demee ak ci yan circonstances ngeen rencontre waaw loolu dama ci sawar trop tontu parce que nekk na anecdote boo xam te ni bu ma neex madame ñi nga xamante woon si benn dîner de gala au King Fahd Palace bi ma ko gisee man sama soirée foofu la yem dama ko gis rek ne wax dëgg yàlla kii moom ma wax jëm ko jëm suuf nanguwu ma jox numéro il a fallu après ma lijjanti ko ba euh, am contact euh, contact am et tout euh, seeti ko mais vraiment bi ma ko njëkkee gis ci laa xam ni que kii moom tey mënul nekk bés bu ñu mujj gisee foo ñu gisee waat. lan moo la frappé woon ci dîner de gala bi ci moom ba tax nga ni moom la. oui mais xam nga li ngay yëg rek boo gisee ki nga xam te ni peut-être euh, yàlla bindoon na bu yàgg ni yàgg moom mooy sëy li nga yëg rek laay loolu laa yëg euh, li nga li nit di yëg donc bu ma bu ma ko gisee automatiquement ma ne vraiment euh, perle bi ma gis nii ak vidéo bi ma gis ni ma gis nii mu jàkkaarloo ki ma jàkkaarloo nii. waaw yàlla bu mu nekk koo xam te ni am na jëkkër wala bu ma demee si moom yàlla vraiment bu mu fekk mu mu marié. <laughs> man bëggoon naa xam ne déjà xam nga góor yi dañuy tànn jabar. donc bëgg naa xam yow yan qualité nga gis si moom ba mu poussé la nga def ko sa soxla. waaw non il a fallu ñu nekk juste quelque temps rek yàggul sax quelque temps pour ma xam ni que moom mooy la femme idéale pour moi. Mhm. parce que euh, à travers qualité qualités énormes su ma koy lim fii laay fanaan. qualité yi nga xam te ni moom la góor di wër si jigéen yëpp mu ngi ci moom. Mhm. waaw dina may jàppale dina ma conseiller dina ma dalal te loolu la góor soxla. voilà dina ma conseiller ci lu ma avancé loo te su ma avancé ñu avancé ndoo ensemble. Euh, di ma jàppale yërëm ma nag wax dëgg yàlla donc loolu bokk na ci yi nga xamante ni tax na euh, ma ne na wax dëgg yàlla kii moom su ma rëccee ma ñàkk jabar ma ñàkk jigéen ju baax ñàkk soxna. ñaata temps la ko dawloo xam nga ñun jigéen ñoo mën a siisu ñaata temps nga souffrir nga galéré. mois des mois. <laughs> Ah, de janvier à juillet. Ah. voilà donc. yàgg six mois. <laughs> six mois yoo xam te ni moom on s'est vu on s'est rencontré le janvier. Mm. et c'était le c'est à partir du 28 juillet la ñuy commencé nekk officiellement ensemble. bi mu la njëkkee ne oui yëg automatiquement. mais j'étais l'homme le plus heureux du monde boobu ba léegi bànneex bi ma yëg mbëgte bi ak dund bi ma dund fu ma su ma fool li muy féexee mosuma dund lu mel noonu sama àdduna. def ngeen euh, bon un an après ñu marié wu un an. une année. xam naa madame moom dañ koy denc mu dem solo ju ñëwaat ñu dekk ko suñu micro waaw Fata kontaan nañ si yow. maa ngi gën kontaan bu baax jërëjëf merci. ayca ñu bàyyi madame dem defaat baax rek ñu di ñëwaat ayca merci beaucoup. madame Sakho bonsoir. Euh, tey bis bi nga xam ne nag moom la jigéen bu nekk di ñaan yàlla may la ko lan ngay wax ci bis bi. xam naa euh, di kontaan di kontaan di am mbégte parce que. Euh, yàlla boole na ma ki nga xamante ni moo gën ci man moo gën ci man mooy ki gën ci man te loolu xam naa ko parce que euh, bëgg na ma teg na ma sama place euh, manqué wu ma dara yërëm na ma def na ma ni yaayam def ma ni seram def ma ni jabaram teg ma place yëpp à la fois et ça c'est tout ce que je je cherchais en fait pour moi euh, voilà l'homme de ma vie il devrait être un homme boo ni il capable aujourd'hui de me mettre euh, à la place de sa sœur à la place de sa mère à la place de sa femme à la place de son enfant en même temps et loolu yëpp gis naa ni euh, macha allah mu ngi si moom. mais nee na dawloo nga ko presque six mois lu ko waral. <laughs> Ah, parce que warul yomb foog mu metti foog mu metti ak góor yi warul yomb. mais maman yooyu est-ce que nekkoo yow tamit doon ressentir la même chose nga gëmm rek bàyyi si si je ressentais la même chose mais enfin, peut-être pas la même chose, mais euh, moi aussi je, je sentais qu'il y avait quelque chose de mon côté. mais euh, voilà rek xam nga rek ñun jigéen ñi foog ñu mettil bu baax ba mu metti comme ça voilà. lan moo la gën a neex ci moom ba tax nga accepté. alors euh, mbaaxam franchement euh, nit gënu ko il est fou il est généreux yërëm na ñëpp. su may wax si moom vraiment fii lay fanaan lui daal euh, voilà qualité woom bi ma gën a touché c'est ça c'est le fait qu'il soit si généreux il donne sans compter tey bu doon yore euh, on peut dire benn last 500 000 dans sa dans sa poche wala bu ko nar a dese de la semaine ou quelque chose bu xamee ni tey nit ñaan na ko ndax soxla na ko il hésite pas il donne tout et il reste avec zéro et ça euh, c'est pas évident c'est pas du tout facile euh, ci góoru léegi Donc euh, pour moi, c'est une énorme euh, qualité chez lui. Je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. <laughs> oui. Oui. Mhm. Mhm. Alors, que ne me mougnole. Parce que je sais que... Euh, je sais que Inch'Allah il manquera de rien il manquera de rien xam euh, naa ni dinaa ko toppatoo Inch'Allah nu mu waree il manquera de rien donc euh, ne me muñal voilà tout tout tout viendra juste ne me muñal. lépp ngi en place lépp ngi en place lépp. lan ngay tàggatoo ak invité yi nga xam ne jóge nañu partout les artistes ñëpp daal di ñëw teew sa di leen di leen di leen remercier parce que amuñu seen fay tey euh, vraiment man je suis je suis euh, choquée on peut dire parce que de mes sœurs de mes cousines de mes copines j'ai reçu beaucoup d'or j'ai reçu du diamant euh, voilà de mon mari j'ai reçu une bague en diamant de ma sœur tout à l'heure j'ai reçu un collier en diamant franchement ça me touche énormément parce que voilà quoi bon ça me touche quoi juste euh, di leen remercier Fata un petit mot ñu daal di tëj li nga xam ne moo di interview moom tamit wax na nee na elle t'aime yow tamit looy wax. moi aussi je l'aime de tout mon loolu laa si tontu c'est ça et puis kontaan rek kontaan vraiment euh, ñaan yàlla suñu sëy bi bokk ci sëy yi nga xam te ni euh, dañ koy bind si aras yàlla may ñu njaboot bu barkeel et puis yàlla musal ñu si seytaane ak noonu ak pexe noonu. loolu daal laa bëgg ñaan laa bëgg të tëjee na ñaan. waaw comme ni ma ñaan. merci beaucoup merci. et merci merci beaucoup merci.